ñeenteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi fukki ndaw yi ak ñaar def nañu ay kéemaan yu bare bés bu nekk ñuy daje ci kër yàlla gi ñuy seddoo añ yi ak reer yi taalibe yépp bokk li ñu amoon jaay nañu seeni alal ngir dimbali ñi nekk ci soxla mboolem ñi gëm ñi nekkoon ci Yerusalem wane nañu seen cofeel ci seeni mbokki taalibe doon nañu dimbalante ci seen biir waaye ab taalibe yéesu warul xemem alalu jàmbur nit ku nekk yàlla moola jox li nga am nit ki moo xam ca kanam yàlla li muy def ci alalam kenn warula wéeru ci kenn ngir mu dundal la borom bi yeesu nee na kenn ku nekk war na liggéey ngir dunal boppam ak waa këram. yàlla bëgg na ñépp wéeru ci moom ak ci seen liggéeyu bopp. yàlla bëgg na itam ñi gëm yeesu di dimbalante. léegi ma laaj leen. juróom naka la taalibe yi yeesu daan dimbalante. taalibe yi daan nañu bokk li ñu am